asalaamaaleykum nos amis fidèles internautes Dakar Midi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi amaat mbégte a contentement jàkkaarloowaat ak yéen comme niñ koy faral di defee saa su nekk tey nag ñu ñëw fii ci Fass Bintéye dalal fi benn ndaanaan euh, euh, xale bu am jom xale bu am talent ñu koy woowee Son Altesse ma bàyyi ko mu nuyoog suñu mbokk internet yi Son nuyu naa. maa ngi lay fay naka mu yaa ngi ko. ça va sant yàlla. waaw ah, mais maa ngi leen remercier d'abord invitation bi xam nga di leen dalal di leen wax ni bienvenue yéen a biir faas di leen wax ni dal leen ak jàmm di bëggee ñëpp ñu nekk di seetaan émission bi Son Altesse le PDG. Euh, son Altesse ñu bàyyi la nga nuyu euh, nga présenté wu ak suñu mbokk internet yi seetaan Dakar Midi. waaye bon pour ñu ma xamul Son Altesse lañ may woowee artiste rappeur. donc maa ngi nii nekk di suivre sama carrière musicale xam nga nekk di def ay affaires et tout ça donc maa ngi nii quoi Son Altesse Royale la. léegi bu ñu bëggoon xam lan mooy Son Altesse ak tur bi fan la jógee et son vrai nom. bon tur bi mun naa ne jamonoy Facebook la woon foofu la commencé woon donc jamono yi gars yi doon changé seen turu Facebook yi di def ay king ay roi affaire yooyu noonu donc man dama changé woon sama turu Facebook def ci Son Altesse. donc euh, mën naa ne affaire yi parce que dama doon je je je voyais que ni royaume wala di di tudd seen tur yi votre altesse pour honorer tur boobu noonu donc mën affaire yi foofu la ma def ko sama turu Facebook ma ne bi may def musique pourquoi pas ma continuer ko parce que amoon na nit yu ma xamee tur boobu noonu ba pare donc mën ci la affaire bi commencé quoi la commencé waaw. d' accord léegi yow euh, lan moo la la dugal si musique mun naa ne passion la bëgg-bëgg la donc foo tamit moomu ci dugaloon parce que tamit bu ma koy def ay foo la woon xalaatu moon dinaa ci toll fii tey ci ay journée culturelle def benn son ci ay foo rek nit yi bëgg ko ma foogoon que ni sax duma ko mës a continuer mais dañu dem ba ci biir da ngay gis que ni nekkatul yow ko se lay bi nga jàppee woon ay foo am na nit yoo xamante ni neex na leen bëgg nañ ko ñu ngi ciy gis seen bopp donc ma toog après na non man lii du sama yëf quoi ci laa toogaat beneen année ma defaat affaire bi defaat am lu mu defaat ma ne bon pourquoi pas ah donc si laa commencé sama carrière en deux mille fin deux mille ni deux mille vingt mais lépp ay foo la woon te en passion mu bëggu ko quoi. passion la aussi. waaw mhm, passion la. donc donc depuis deux mille dix neuf ci nga commencé euh, di commencé di def musique. fin deux mille dix neuf waaw. fin deux mille léegi Son Altesse bu ñu bëggoon xam depuis boobu ba léegi génnee nga ay clip ou quoi que ce soit. Mhm. bon génnee nañ ay clip. génnee nañ ay clip def nañ suñu premier son maa ngi ko def en featuring ak El Diaz xees ñuul donc après def naa maa fi mën donc après def naa respect def naa xale comprendre nga def naa waaw démb génnee naa benn clip bu bees bu tudd sama mënin démb la génn donc yéen da ngeen am exclu sax démb la clip bi génn donc euh, loolu yëpp instant def nañ ko quoi yeah. donc man dama gis ngay naan yow yaa fi man alors que rab am na roi ba pare te yow da yow yaay roi rab bi. te ñi xam nañ ne kan mooy roi aussi ci rab bi. rab bi amul benn roi amul benn titre bu ñu bu ñu jox nit ne kii mooy roi bi fii lenn moo fi am mooy ku nekk day gëm boppam ñoo imposé teg roi yo moom ne lii la bëgg a def imposé. parce que tey gars yi bokkuñu sax lu ñu def am nañu jël yoon bi am nañu jël yoon bee style yi bokkuñu comprendre nga mais man dama gëm ni li may def maa ci roi te sama génération y a pas meilleur que moi loolu laa gëm loolu la incarné te lii leader laa tamit sama koñ dafa am ñu nekk sama ginnaaw am gox bu nekk sama ginnaaw donc mënuma bañ a mënoo ma teggi nga ne roi nga sama kanam quoi carrément. waaw mais na ñu la gën rab de. lan mooy dàq rab. dib nag. luy dàq rab laa wax. kooku lañ moom la gars yi def roi. ah yow da nga ne yow nga xam nga royal moom moom mooy roi te xam naa ne dib moom moom daa mel ni moo gën a nekk roi de moom la gars yi teg kii bi de. Ah, bëgg sax di tudd je respecte ce fait respect à lui parce que tey jii nii mi ngi jaay Sénégal fu nekk comprendre nga. mais gars yi dañuy jaawale man moom bokkuñu génération dégg man la man fin deux mille dix neuf laa ñëw presque deux mille vingt moom da ngay xool kañ la commencé rap nga xool man kañ laa commencé rap boo may tëkkale da mais loolu la ñuy naan genre njëkk dugg ci benn affaire day am moom moom ci njëkk a dugg mais boo ma mayee fii ak par exemple benn deux ans nga xool sama évolution wala benn trois ans nga xool point bi mu jugee ak fi ma yegg bu boobaa di nga mun def yenn comparaison yi mais instant yi nii defaguñu dara dara defaguñ ko dañuy soog a ñëw rek dañu nuyoo rek instant yi nii. waaw ñu ngi waajal benn concert benn événement bu mag boo xamante ni le 24 décembre la incha allah fii lay amee ci Bendeñe bi fii donc mu nar nekk sama first édition bon yàgg naa jouer ay scènes yu mag yoo xam ni peut-être ay grand théâtre Sorano nekk si fu nekk loolu day fekk ñu fay ma cachet ma dem def ko comprendre nga mais bii leneen la lii sama bopp la man maa ko tegal sama bopp mu nekk sama first édition boo xamante ni. fii lay amee ci benn ñee bi ñëpp di ko waajal mu nekk événement bu mag boo xamante ni Sénégal yëpp a koy xaar parce que Altesse dëgg la Fass lay représenté Daaru Musi tamit sama dëkk la mais du du du Fass kese ñëw ma bëgg Fass ñoo ma yëkkati tóoj ma ba ñeneen ak ñeneen bëgg ma donc fu ne la nit di jugee le 24 incha allah pour ñëw teew fii ci benn ñee bi pour ñu def benn show bu extraordinaire boo xam ni nit di mosuñu ko gis spectacle yoo xamante ni mosul am donc bëgg nañ def loo xamante ni ku ko gis dina xam ni lii nii travaillé nañ ko te am na fu mu mën a jëlee hip bi am feneen fu ko mën yóbbu quoi yaa d'accord léegi yow ci musique bi surtout ci rab bi kan moo si say idole non aw ma idole aw ma idole ci rap à diir dire quoi la am na ñu ma doon déglu avant may dugg ci rab doon naa déglu ñu bëri mais moo ko doon dama leen doon déglu comme en comme ay samay moromu jeunes yu bëri ñu leen doon dégloo mais idole bu tax ma ne kii moo tax ma ma dugg ci rap pour nekk artiste non amul amul. léegi yow euh, si musique boobu noonu kan nga doon gën a déglu si musique. avant may dugg si rab doon naa déglu Canavas lu bëri. waaye comme sama waaye comme samay morom yu bëri ni ñu ko doon dégloo jamono yooyu noonu donc doon naa ko déglu lu bëri bëri bëri mais ça veut pas dire que ni moom moo tax ma ñëw genre gis ko ne dama bëgg a mel comme a mel comme kii dama bëgg a def comme kii lu muy def non man dama ko doon déglu en tant que mélomane comprendre nga melomaan bu bëgg rap comprendre bu bëggoon moom lu muy def mais ba ma demee ba dugg ci rap nekkul moom moo ma pour ma def rab comprendre nga donc mun naa ni affaire yi noonu la demee ko yeah. léegi euh, kon maanaam mën nañ xaar yaakaar na bas ngeen def benn featuring. mais pourquoi pas ça que loolu plaisir la ça me fera plaisir donc liggéey rek lu jot yomb ah affaire yi moom il faut jamais never say never la ñuy wax il faut jamais dire jamais comprendre nga nekk maa ngi sama yoon di job donc mun nañ gis lu nekk quoi. l'essentiel naa ko fiil mu fiil ko rek après lépp mun nekk job rek. ñoom Dibsa mën nga def ak moom mais bien sûr man damay def ak featuring ñoo xam ne duñ ay rappeur ay mbalaxmaan man dama am ouverture dama am esprit d'ouverture man aw ma tënkuma sama bopp ci benn affaire musique partage la musique dañ ko war a yaatal waruñu di ko war a yem kii fii la war a a yaatu pour musique bi mun dox ñu biir pour mun di exporter suñu musique di ko jaay muy gën a kawe di gën a dem donc waruñu nekk di jéem a créer yenn affaire yi su ma filee benn artiste ma xam naa benn son kii laa fil kii ma xam ni kii su ci tegee touche personnelle la moo mun génnee son bi mais dama koy kóol ma wax ko ko keneen tamit suma ma filee featuring mu gis ni def na benn affaire man la sentir ñu def ko ko mais dafa may kóol ñu jëm ko ñu xool nuñ ko defee donc partage la rek pourquoi pas lépp mën na nekk. da ngay déglu mbala. lépp laay déglu lépp xam nga lépp am na lépp. léegi yow lan moo la gën a neex ci sa àdduna. lu ma gën a neex sama àdduna. <laughs> laaj nga ma question bu graaw loolu dafa vague de. bon question bi daf ma bett en fait préparé wu lii mais soo tawee tëb rek nga ne ma lu ma gën a neex sama àdduna ma sama ma fi neex bëri na mënu a neex na lu la a na lu loo la gën a neex si affaire yi. domaine yi par exemple. si domaine lépp si domaine lépp. dafa rëy quoi non mënu ma ñëw rek ma leen lii moom gën a neex sama àdduna domaine yi dafa bëri àdduna dafa yaatu xam nga donc li ma neex bëri na bëri na trop. mënoo ñu see limal benn. musique bi may def neex na ma waa exemple quoi donc moo tax mën la dafa yaatu. léegi yow lan moo la gën a nakari ci sa àdduna aussi. waxaale de. xamul ma nakari maa si jaamu de man man jaamu rek laay dund moo benn problème man tant sama yaay ak sama pap ñu ngi si jaam RAS amoo benn problème man sama yaay bu nekk si jaam rek maa ngi si jaam jeex na. ñu nekk yow mii da nga fonk sa yaay de. bu baax mooy sama lépp sama yaay dafa def sacrifice yu bëri pour man xam nga. dafa rayante pour man day xañ boppam sax pour man lépp pour bëgg ma réussir donc tey jii nii xam nga c'est une battante quoi lion la xam nga jàmbaar la carrière la donc moom moom dafa jàpp sama carrière bu baax ak sama papa tamit man sama famille dañ may bu baax baax baax donc man awma leen sut tey jii su may rayante pour ëllëg ñoom ñu nekk dans de très bonnes conditions la quoi donc mun naa ni lépp ñoom la quoi su ma waxee sama sama yaay ëmb na sama famille yëpp ak sama waa koñ waa Fass tamit donc dafa am fuñ ma yëkkati am fuñ dafa nañ ma yëkkatee en am fuñ ma teg am benn yaakaar bu ngan si man ma war leen représenté fépp si àdduna bi donc man ak ñoom nii la dañuy dem may dem ñuy demandoo ñuy demandoo loolu kese la amul leen sut tey népp nu ma mel ñoom ñoo ma ko def xam nga su ma jógee ba ci kaw ba ñeneen di ma bëgg faas daf ma yëkkati sama gox sama dëkk tamit waa daaru tey ñu ma mel tamit ñoom ñoo ma ko def amul leen sut am na am na lu bëri luñ def ci man donc loolu la quoi man ak ñoom nii la rek dañuy dem di demandoo rek amul dem bàyyi kenn waaw accord léegi yow euh, <clears throat> ñu wax ci actualité ce qui se passe au Sénégal léegi gis nañ violence bi dafa bëri lool yow en tant que jeune lan ngay conseiller xale euh, jeunes yi nga xamante ñu ngi def violence surtout concernant étudiant étudiants yi nga xamante ne barki dee moo lañ doon def violence te nga dëkk yow mi presque côté université yow ban conseil nga leen di jox en tant que jeune. mais loolu dafa war a jeex parce que loolu jëmalewul réew kanam violence c'est pas bien gars yi dañ ko war a arrêter ñëpp ñu koy def lañ leen di wax xam nga. képp koo xamante dafa jug pour def loolu noonu il faut nga arrêté ko léegi léegi parce que amul mujj bu rafet quoi violence ay dégâts rek lay créer donc ñu ngi wax ñëpp ñu dal quoi ñun Sénégal dëkku jàmm la pays de la teranga lañ wax jàmm lañ xam tey jii nii boo ñëwee sax lii Sénégal rek moo am nga dem kër jàmbur xamoo ko xamaanoo ko nga ñëw dugg ñu taajal la bool nga ñëw añ teraanga nga ñëw mun nga ñëw sax fanaan kër jàmbur koo xam ne xamoo ko loolu fii la am donc loolu nga la waaye buñ ko yàq quoi jàmm ji na gën a sax loolu lañ xam loolu lañ miin comprendre nga ñun ñëpp ñoo far ñoo bokk ndey ñoo bokk baay tey boo fi defoon kenn dara ba gaañ ko wala da def ko dara lu ko metti suba yeneen waat ngeen xoolante dañuy ru da ngay rus donc yàlla jàmm yàggu quoi loolu la ñuy ñaan ci réew mi ne ñëpp am jàmm léegi euh, à part concert bi ñu xaar Sonaltes si lan la war a yëngu yan projet la war a def bëri na mais essan yi événement bi rek kese la le 24 kese ci lañ nekk li ci des bëreetul vendredi la ñëw na ba pare donc euh, na gars yi waajal loolu mooy loolu mooy actualité bi instant yi mooy samay news donc événement bi loolu la ñëpp di waajal fa yëpp a koy waajal Dakar Médina Gueule Tapée Colobane Dakaru town ñëpp xam nga ba ci région yi ci banlieue bi ñëpp a waajal xam nga donc instant yi moom le 24 mooy projet bi quoi yeah bu jaale nag après ñu soog xol xool mais nii nii nii nii moom le 24 kese. léegi laa lay wax lu musul am. loo leen musul gis ci spectacle ah, parce que bëgg nañ def affaire yoo xamante ni nit yi musuñu ko gis ci innovation ci côté musique ci musicalité xam nga ci côté spectacle parce que affaire bi du ci woy bi kese mi nit dañu war a gisaale man moom képp ku ma xam-xam ne Altesse moom spectacle yëfam la quoi ñu ma ñu ma mës a seetaan ci spectacle yëpp xam nañu su ma ñëwee tout le temps damay indi benn affaire bu bees affaire bu nouveau boo xamante ni nit yi taamu ñu ko gis donc du ma bëgg di def lu ma defaatoon may bëgg di apporter tout le temps lu bees donc na gars yi xaar affaire yu bëri quoi ay affaire yu bëri yoo xamante ne bu ñëwee xam nga danañ am surprise quoi yeah dinañ am surprise. léegi concert bi on dirait que plein lay doon de. waaw fii lay amee ci benn ñebe bi la. donc waaw defoo ko pass. pourquoi. defoo ko pass. mais plein air ko def pass fii ci koñ bi mooy base bi. mënuñ nga yóbbu ko grand théâtre wala CICES. waaw loolu yëpp mun na nekk xam nga loo gis dafa am yoon ñun dañu plan de carrière boo xam ne c'est bien défini dañ ko bind am benn staff bu nekk ñu ginnaaw. donc décision yi nekkul man kese maa koy jël dañuy toog waxtaan ci ñu xool lu ñuy def donc tey jii teg nañ suñu benn plan boo xam ne ñu ngi koy topp ndànk-ndànk nekk ñu di course ak kenn xam nga parce que carrière la ñuy def buñ koy wax ci longévité lañ koy natt comprendre nga fii ak 10 ans nga ne Altès lii ko natt ci am na benn bu ñu teg mënoo tëb tëb rek di dem ay grand théâtre wala ay Sorano dafa am yoon tey sama koñ mooy sama base face xam nga lépp lu mu mun ci amee ëllëg tamit ñoom laa xay bokkal donc su may njëkkee sama koñ laay njëkkee muy face base bi ñu teg ko fi le 24 fête la dama bëgg ñëpp génn ñu ñëw ñëpp kontaan ñi ñëw feetu def ko suñu biir ñëpp ñëw fekk suñu ñu def affaire boo xamante ni day extraordinaire léegi nag après leneen luy ñëw dina ñëw quoi mais pour pour pour first édition bi moom Fass la quoi loolu lañ décidé pour def ko donc mais li nga wax ni yëpp dina ñëw Sorano dina ñëw Grand Théâtre dina ñëw xeeb nañ loolu sax de pour te dire vrai objectif bi romb na foofu di dem objectif bi leneen ak leneen la mais daf di loo dafa am yoon Mm. d'accord léegi ñu bàyyi la nga tàggatoog suñu mbokku internet yi seetaan Dakar midi. Euh, waaw mais maa ngi kontaan di leen remercier ci invitation bi la fekk ngeen déplacé wu xam nga bàyyi seen temps ñëw ba faa seet si ñu donc loolu content contentement lañ ci am xam nga di bëggee ñëpp ñu nekk di seetaan émission bi xam nga di leen invité yéen tamit ngeen ñëw ci événement maa ngi leen xaar le 24 xam nga ngeen ñëw. ñu yëngal yëngalaat yaa ma gën a xam kontaan naa ci invitation bi c'était son Altesse Royale le PDG di remercier Euh, sama frère Assane Diousé Diousé maa ngi lay remercier bu baax a baax di la bëggee gis naa ni nga jàppee ci événement bi aw a sa fay tu es mon frère amal jaamu ju bëri di ci woo sunu maire commune bi nag maire commune Gueule Tapée Fass Colobane monsieur Ousmane Ndoye ñu ngi ko ci woo di ko wax mu jàpp ci bés bi bu baax a baax a baax ñu ngi ko ci woo ak képp koo xamante ni autorité nga ñu ngi lay woo nga jàpp ci bés bi xam nga parce que ay ndaw lañ nekk ci yoon bëgg nañ ku ñu jàppale musique dafa metti ñëpp xam nañ ni ça demande teg ay podium ça demande des millions def ay clip yu rafet leneen ak leneen donc gars yi geesu ñun ñu ngi def lu ñu mën xam nga pour di représenté koñ bi di représenter Dakar di représenter Sénégal tey bu ñu amee ndam mun naa ni Sénégal am ndam tey parce que musique bi war nañ ko mun jëlee yóbbu ko Sénégal exporté ko yóbbu ko feneen donc gars yi ñu geesu ñu jàppale ñu affaire yi na trop ñun mais nañ ñu seen doom lañ jàppale ñu may ñu doole loolu rek lañ bëgg suñu jàppalee accompagner ñu lépp luñ bëgg dinañ ko am incha l'émission prend à sa fin comme niñ koy faral di ko defee saa su nekk rek avec Sister Eva nee naa leen lay demee saa su